Euh, président Ablaye Wade ñëw na fi seet ma jaale ma it ma dugg moom ci néeg waxtaan ak moom ci ñàkk réeroo ak moom ndax du ma def lu ko naqari du ma def it loo xam ne du ma ci diisoo ak moom ndax moom it ni mu ko waxee dafay diisoo ak man ci lu ne ci waxtu wu ne ci kaw loolu ci coobareem fas naa yéen a woteel président Macky sàll di woote képp koo xam ne sama gisin doy na la nga wote Macky Sall ñu bëgg a xam est-ce que cette li ma wax li ma décision xam ngeen déjà am na lu mu bindoon bindoon naa ne j'ai déjà écrit que objectivement Wade ne peut voter que pour Macky Sall. Déjà, il a, il a dit qu'il n'allait pas voter pour les quatre autres. À partir de ce moment-là, le journaliste, c'est l'observateur. Le journaliste se rend à l'évidence et n'attend pas que l'évidence se à lui. en, en phase avec

C'est que le président Macky Sall l'a déjà déclaré, je crois, en France, France 24, qu'après les élections, il allait amnistier largement. Et je crois que c'est une déduction. Donc, euh, en ce moment tout le monde redeviendra libre euh, dans les prochains scrutins. Et comme je lui ai dit, toutes les choses vont se réparer d'elles-mêmes. Euh, euh, toutefois, je ne suis pas en conférence de presse, je suis en point de presse pour une euh, déclaration mm. qui a déjà été faite, qui est brève, qui est circoncise, mais qui est significative. C'est-à-dire que nous sommes loin de, du, pyro, du, qu'ils ont voulu euh, nous, nous, nous, montrer en la personne d'Ablaï Ablaï Wade est un homme pacifique. Et je crois que le président Macky Sall et le président Ablaï Wade euh, réciproquement, se respectent réciproquement et l'avenir nous le dira, nous le confirmera. suffisant. c'est largement suffisant. waaw tout important li ma wax léegi ci olof mooy dégg ngeen ko gannaaw bu ma waxtaanee ak président Abdoulaye Wade ñu ñëwoon jaale si ma wax naa ne euh, jël naa décision déclaré ñëpp dégg ko ne fas naa yéen woteel président Macky Sall et que maa ngi oo képp koo xam ne sama gis si doy na la nga watal président Macky Sall maanaam wax moom gannaaw xas na ba am ma ne gën euh, defuma conférence de presse pour soumettre euh, hmm. c'est ay question ngeen laaj ak ci déclaration la bu bref bu gàtt hmm. maanaam li wax ji li mu wute ak yeneen wax yi hmm. mooy ñoo xam ne ba ñuy dem dañoo sàkketu làqatu te mu wóor leen ne wóor wóor war nañ Ablaye Wade man nag dama ko dama wax ak moom ne ko loolu du am mukk ñu dugg ci suñu biir waxtaan la ñuy waxtaanee génn ma door a jël décision boobu. mën nañu am ngeen waaw léegi nag la ca des. Mhm. la ca des journaliste moom day xam lu ñu ko waxul waaye journaliste bu toogee bañ di ko tajal yàq kon kon kon sax saaga nañu. moom élection du fi am te dina def lépp ba élection du am. waaye waxaatul loolu léegi bi ma ko nee moom jàmm rek la bëgg dafa ne waaw waaw. Mhm. maanaam moom jàmm rek la bëgg. waaw mais loolu waaw d'accord mais olof nee nañ olof ñu ne. tudd safara lakkul gémmi déedéet.